tey jii nag di dibeer di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru euh, tamxarit eh, ñu àndaan rek nag ginnaaw bu ñu sëlmalee timis ba noppi ñëw ci sow jumaa ji ci tëli bi nga xam ne moo di tëli alaaji Njuga Kebe yal na yàlla dolli ay leeram eh, ñu àndandoo ak sëriñ Moudou bu Bousso ak sëriñ Abdou Diop imam waaye ànd itam ak ñi nga xamante ne bi ñoo ko baaxoo di ko jàppale ci liggéey bi waxtu wu ne ñu ñëw fii nag toog ngir yëkkati ay kàddu xam xamle li nga xamante ne bii sëriñ bi digaloon nañu ko ñu doon ko séentul ba nga xam ne joxe ndigal jot na kon ni ñuy def ñun ñëpp dañuy maase déglu sëriñ Abdou jot imaam kàddu yi nga xam ne moo bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadou Mountakha. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw ni ko sëriñ Fallou Garas waxee rek neen ko baaxoo def def nañ ko muy bisu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wu ne sëñ bi dana nu yabal ci ci jumaa ji ñu yéene ci wax ne ñu séentu weer wi te ko ci xam lu wér nga ñëwee ko bi ñu ko defee nag bi ñu génnee ci soow jàkkaar euh, lekk la yàlla dogal ñun ñu ko war a séntu ñëpp ñun jàkkaarloog weer yi waaw bi ñu jàkkaarloog weer it teewul euh, maanaam ci gox yi gox euh, maanaam jokkoon nañoo ñun ñoom it wax nañ ñu bëree bëri gis nañ ko ci gox yi ak ci dëkk yi. ban defee noonu rek lañ jokkook kër si kër sëñ bi kër suñu Muntaxa léegi ngir gën a dëgëral rek moo ban demee sëñ ak di sàkku ndigal bañ demee sëñ bi nee nag kon. nañ nañ nañ wax ne weer feeñ na niñ ko daa nañ ko daa waxee rek kon nag ñu di leen xamal ne weer wi ci boppam moom feeñ na kon suba ci altine ji mooy doon benn fan suba na ko ñëpp xam te yàlla na yàlla may ndam ak xéewal ak jàmm ji yaatoo yaatoo yaatoo ba mu defee que ni ko sëñ bi bëgg day day da sëriñ bi mu taxaa yàgg fi lool ba li ñu yéene mu lépp mu def ko ba ba def lu kawe def ci lu kawe njortam ten ànd koog moom ci daraje sëriñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa